waxtaan ñun ñu waxante dëgg parce que léegi nëbbante amu fi gis ngeen ni France temps yi yëpp temps yi yëpp France li muy def mooy de la désinformation lay def ci état du Sénégal di wax lu nekk parce que nous avons un problème avec eux et c'était pas un problème bu ndaw c'est un problème très sérieux voilà parce que France Total dañ ko jox ay bloc bi Thierno Alassane Sall di démissionné dañ ko joxee ay bloc bi ñu demee def exploration gi liñ fa gis doyu leen le président Macky Sall ne ko mu jox leen yenen bloc kooku dans sa posture de chef d'État mu ne leen du joxe benen bloc tant yi ñu joxe gum exploité wuñ ko ba xol li ci xew mais c'est à saluer moment bobu nak dafa nakari wona wax parce que opposition ba ngi tiré ci Macky Sall troisième mandat France nek ci ginnaaw di tirer les ficelles les gens ne nous écoutaient pas ñu jël ñom jouer la carte de l'opposition yoni émissaire mu dem séti Ousmane Sonko président Macky Sall daral Marine Le Pen c'était inélégant les Macron def et le président Macky Sall l'a euh, repris à l'a Jeune Afrique Je dégg un jour le roi du Maroc euh, Qui astaghfirullah astaghfirullah qui est euh, Bourgi l'avocat mu def interview l'observateur le problème entre Macron et le président Macky Sall ils ont un ami commun le roi du Maroc qui est le régler Mané kon liñ le président Macky Sall xam na ni la France est capable de tout parce que l'argent venait de partout Financer yana mar financer qui financer que donc il sait nous sommes ko lan capable et lui il tax mu les blocs. C'était pour défendre le Sénégal et ses ressources naturelles Donc on veut me dire qu'il l'a fait trop tard Ce n'est pas notre problème il l'a fait ñu jël sen chien de garde parce que nous am ñaari chaîne de télévision France 24 ak Erifi nga nekkuñu sax ministère de l'Information. ils sont logés au ministère des affaires étrangères kedor c' moo leen yor ñu jël chien de garde yi lâché lâché ko ci Sénégal Nous avons invité Ousmane Sonko ñu avons 1 million de vues Nous xam nañu ñun ñi fréquenté rédaction Nous xam nañ naka la bosté nga am 100 vues wala mun nga am 100 000 vues Nous avons ko ñoom ba mu yegg ay 500 000 vues on comprend ce qui se passe. mais le président Macky a joué leur jeu et sorti vainqueur France fi mu nekk nii amul amuñu fenn foo xam ne France fi mu nekk nii mën na fa parce que dañ doon utiliser la carte de la troisième candidature du président Macky Sall pour semer le doser dans ce pays parce qu'ils sont mécontents joxuñu leen ci gaz on a bloqué les autres blocs de pétrole parce que dañ ne nañ leen parce que France li mu am total li mu am et le président a dit ñett non déedéet kenn du ko jox et ce qui s'est passé ñu commencé l'arrestation de Birame Souley Diop li mu wax jéggalu baalu ko ñu tiitre ko ne dafa il est dafa dafa dafa dafa critiquer décision président ñu japp ko xam nga lool moy waxi caaxaan yi gëna reuy mais le Sénégal a été fort par l'intermédiaire de son ministre de la communication ñu bind France 24 bi ñu tiitee nag Macky sal renoncer troisième candidature ñu xam ni le Sénégal bras de fer bi du ko bàyyi ñu dellu ginnaaw bind lettre ne dañoo juum dañ leen jox information boo xam xëy na saytu wuñ ko woon mais jubluwuñ ci woon di euh, di di jublu woon ci loolu bon ñun xam nañ liñ ci jublu parce qu'ils ont pris un militant de Pastef qui s'appelle Eliman Ndaw mu nekk seen correspondant est-ce que kooku tey mun na joxe information boo xam ni dafay juste et équitable moi je dis non donc lii dafa nekk ay mbir yoo xam ni dafa tënk la candidature qui va sortir du président Macky Sall parce que la France est en train de travailler aussi dans le Benno Bok pour essayer de trouver un candidat à xam moo donc nous on connaît tout ce qui se passe et le président Macky Sall xamna y a des traîtres qui sont autour du président Macky Sall et ils sont prêts à vendre ce pays ou bien vendre le président Macky Sall pour être président de la République parce que France ming ngi les gens comprennent ce qui se passe Qu'est-ce que dans ce pays là les Sénégalais vont se lever parce que le pays leur appartient et dans les six mois qui resteront man awma ma candidat awma ma kenn mais je soutiendrai le président Macky Sall man dina ko défendre fu mu nekk parce que def na lo xamni ne jàlloore ci réew mi ba paré France li mu ko bëgg a di manipuler di jël ku nek di la essayer ils ont joué et ils ont perdu ils ont essayé la carte Ousmane Sonko et je ils savent pertinemment qu'ils ont perdu maintenant carte bi ñuy tànn mi ngi ci bir la mouvance présidentielle di ànd ak Macky Sall di dox ak mom bis bu nek et Macky Sall xamna li ñuy wax ñun donc réew mi kenn du ko kenn du ko seetaan ay mais extérieur pour défendre leur intérêt ñoom bëgg ne dañuy taal réew mi loolu président Macky Sall dimbal il a renoncé à sa troisième candidature gis nga nous sénégalais nous devons être des hommes réfléchis suñu taxawaay dañ ko war a gën a yokk